14h si Sen TV bi la jotaay xibaar la ca gën a fës moo di sa an village foofee da jàppale ne benn usine miiram moo daanu fekk si ab benn kër ñaar ñoo si jëlee gaañu gaañu ñaar ñi nag mbir ya metti na lool sa ñoom daañ sa ndax yu nu sàbbalde si bi la jotaayu xibaar dañ laa du it jëmale ci kàddu yi nga xam ne njiitu réew mi président Macky Sall daf ko yëkkati ni ki démb si ab ndajem conseil des ministres moom nag la mu xam ne moo di mbirum bokk na ci ñu saytuwaat maanaam audité installation yu ONAS loolee dalul xel benn yoon waa mairie bu Tëngéej ndax nee nañu loolee doyu leen ndax foofee njàmbat li dafa sakkan lool faw nag ñu gën leen a bàyyi xel dañ si amadu Amadou Senya conseil technique bu maire ba fekk ji it kadduy Omar Cissé moom xelam dafa ma jëm ci wàllum aménagement moom dafa jàpp ne kon mbirum assainissement fii ci euh, diwaanu Ndakaaru ngir nag ñu ut ak saafara faw ñu xoolaat wàllum amenagement bi ndax loolee bëri na ci ay gàllankoor ya nga xam ne euh, bëri na ci te nag mën na euh, sooke li nga xam ne moom mooy wàllum assainissement bi lañ sa bëgg xaye di di mbirum euh, set geex sell gi ci gox yee ko goxaan yi faw nag ñu dénk ko bokki moomeel yi waaye na fekk kon nguur gi euh, taxaw leen ci wàllum koppar loolu lañ saa toftal dana sa bokk tàggat yaram mu mel ni kon euh, football génération foot dana si jàkkaarloox bu Égypte loolee ëllëg lay doon say stade Lat bu Thiès ñeel nag Ligue des champions yi mu mel ni kon loolee bu ñu si noppee nag ndar képp ku la yéen i kaay xëy dëxëñ xëy laa Ahmed Aïdara ngeen taaxi lu ñu xuusi faram fàcce mu ngoog rafet lu ànd beex Sen TV mbokk yi daal leen jàmm si bii la jotaayu xibaar sa aan village la ñuy wutali foofee de ak kawteef moo fa am ni ki tey jii ndax si suba gi la benn usine bu fa nekk mur ba ci boppam moom moo daanu ci benn kër fukk ak juróom-ñaar moo di bilang ba ñëw si jëlee ay gaañu gaañu ñi nag nee na ñu tar na lool nag te metti na sa ñoom ñu ànd ak Seex Yunusa Balde ay lal ay armoire ak it yeneen matériel bu yàqu ay kër yu miir bi daaneel aan village njàkkareem fës ci kanam askan wi toog fii ci biir ëtt bi boobu nag am na ay xale yi nekk ci biir léegi nag ba ñu defee noonu jékki-jékki rek dégg wëm maa yuux na wëy ñëw leen xale yu góor yi koñ koñ bi ñëpp génn ñëw jàppale ñu ñu génn nit ñi ñenn ñaa ngi hôpital ab miiru usine buy defar ay tuyau moo daanu ci juróom benn kër naam sax amul ku ci ñàkk bakkanam waaye fukki nit ak juróom ñaar am nañ ci ay gaañu gaañu ñaari ci ñoom am ay gaañu gaañu yu métti daanu si ko kër yàq kër yëpp nag heureusement nag amul ku ci ñàkk bakkanam mais ñi ci gaañu bari nañ am nañ suñoo xamante ni seen gaañu gaañu metti na torop. miir bu daanu bi askan wi duñu xamal ni rek guddoon na lool te amuloon benn sécurité ñoom sax ñu ni yàgg nañu ko joytu ci kilifa yi ak it ci boroom usine bi waaye mu suñu leen ci fale nekk sa kër ñu yàqal la nii sa kër xam nga ne lii neexul te naar bi yàgg nañu wax loolu fii yàgg nañ ko kaas di leen ko wax. fii kaay leen wax ci maari lii ñuy yëngal fii toujours nit ñi duñ ci wax dara mu ñu xool li ñu yàq li daal ñu defar ko te defar suñu kër gi ndax ñun kër gi lañu am. bien sûr dinañ porter plainte. lu am ba des accident bi di firnde nii rekk dëkkin bi diggante usines yi ak it askan yi ci ndakaaru wóorut dara victim yi di exiger tamit ñu daane lu des ci miir bi nde am na ay kër yu nekk ci suuf. mu di ak njombeelu xew si jamonoy nawet ji ak mbënd mu sakkan bi looloo sabab njiitu réew mi président Macky Sall ni ki démb mu woote ak ndajam euh, conseil des ministres ngir nag ñaax ay jëwriñam ñu gën a mën a bàyyi xel baax wàllu mbënd mi la mu la mu euh, yëkkati ni ay kàddu yu digle bokk na ci ñu euh, saytu yenn installation yi nga xam ne moo ñeel wàllum ONAS ndax nee na faw ñu ko ngir nag mën a xam ndax liggéey ba leen dénk ñu koy matale am déet ndax wàllum inondation bi dafa gis ne faw ak saafaraam si mu di ay kàddu mu dénk ki nga xam ne mooy Serigne Mbaye Thiam jëriñ ñu dénk wàllu Euh, euh, ndox mi mu di kàddu yi euh, ñaax yu nga xam ne njiitu réew président yëkkati na ko waaye it ay mesures yu mu rek waxati loolee nag dalul xel benn yoon waa Tëngéej rawatina waa mairie yi mata dañoo gis ne mbirum ONAS daal du loolee rek mooy saafara ñoom seen jafe-jafe ci wàllum ndax njàmbat li boolu njàmbat lu fees dell la foofee sa Tëngéej dañ ciy àndax Amadou seen ñaa ñu jox ko moom ci téléphone. mais ñu koy fàttali rek ni eh, de xam naa bu nit ñuy jooy. lu tuuti ñun lu bari la jooy ndax suñu coono daa gën a métti amatuñu benn yoon bu ñu jaar ndax teeram bi eh, gannaaw yoonu ak tunnel yi gannaaw ñaari yoon yooyu waa Tëngéej amatuñu fu ñu jaar beneen mbir mi mooy ñi nga xamante ni ñu ngi ci ndox mi mu utal ko saafara ndax dañu nanguwul sataar projet bi mu defoon muy canalisation jël ndoxu commune du nord ndoxu kuunu la sàngalkam kanaal euh, canal boobu ñu fa tabaxoon ba tey projet boobu yeggul fii si ñeenti at saa yi su tawee ndox ma ñuy dajale yëpp day sotteeku biir këri kaw bi si topp mooy euh, suñu xaalis bi nga xamante ni moom la waa Tëngéej moom dañu ne woon bu sel bi amee ñun ñi amoon suñu patente trois milliards six cent ñu nangu ko supprimer ko indi ko liñ ko remplacé juróom ñu lu dul sept cent vingt six millions ñu ne mu rectifier lool. dañuy desandi xam du ñaa conseil technique la ci mairie bu Tëngéej maire ba ci boppam Daouda ñaa ba noppi it xelam màjjëm ci wàllum décentralisation di wàcc te kilifteef moom nag la muy naqarlu te askanu Tëngéej di ko naqarlu moo di jëwriñ bii di Omar Gueye ba mu dikkee gannaaw ba njombe la amee foofu sa Tëngéej dafa mel ni rek ku leen doon soofantal ak fënatal loolee nag nee na métti na leen loolu te faw nag njiitu réew mi dëj ko si ab àndam ñu teew lay kàddoom moom Amadou Sène ñaa ministre de la république la rafetul dara tëngéej nekk ci ay tolof tolof mu ñëw taxaw reetaan daan ne lii kat na ma ko foge woon du nii fii dara amu fi ba muy wax nit ñi ñu ngi amul seen matelas yaa ngi tooy ba muy wax nit ñi amatuñu fu ñu jaar ba muy wax dëkk bi mu ngi tooy xep quartier yi inondé ñu yaakaar ci ministre de la république mu war ñëw masque wu askan wi mu taxaw ne fii wow na koŋ te bu wisaatee foofu tooyaat xepp donc loolu lu ñaawlu la parce que ñu naan du terre bi daan na am avant bi yi daan am avant bi yi fi am yëpp état bi moo ko fi indi donc ñuy ñaawlu loolu ba ci kanamu yàlla di ko ñaan rek mu rectifier ko ndax waa Tëngéej mere nañ ko lool. bu ko deful nag muy demande président mu jël ay responsabilités rappelé ko à l'ordre. desandi nag ci wàllum mbënd mi assainissement xaye di gi ñu si nemmeeku loolee ngir ak saafara faw ñu xoolaat wàllum dëkkuwaay yi di aménagement ka ko xamle moo di euh, docteur Omar Ciss xelam daf màcc màcc jëm ci wàllum dëkkuwaay yi moom dafa gis ne euh, loole nag moo rek moo mën a nekk ak saafara rawatina fii ci diwaanu Ndakaaru ñu teewlu ay kàddoom. donc li gën a sooxe li tax béréb yi am tolof tolof. ñàkk aménagement wante nag ñàkk aménagement buñ ko gàttal yenn saa dañ naan amul plan déedéet du am du plan rek de dafa am plan boo xam ni mooy bu orientation lay joxe mais dafa am plan bu gën a bu gën a tuuti boo xam ni moo mën a wax ne ci bi fi ci béréb bii dañ fa war a def fii canal nit ñi dañu war a dëkk fii bu loolu amee la ñuy soog a wax lotissement ci la bokk ci aménagement bi gis nga plan bi ñuy wax nii bi ñu bi ñu mujjee am urbanisme plan directeur urbain bi ñu am ci Dakar Dakar ak li ko mais la mu xayma ci investissement fii nag cinq sept mille et quelque sept mille deux cent presque cinquante milliards ci fànn yooyu yëpp suñ ko deful ëllëg dinañ toog ni amoon nañ plan mais plan bi du jox dara kon ma ni aménagement sooxe na te ñun daf ñu sonal ci réew mi. mbir mbir mbiru aménagement am nga ci. xanaa rek di fàttali ne ko ni ak saafara ci wàllum xayadi gi inondation yi mbënd mi njiitu réew mi nee na faw ñu xoolaat euh, liggéeyub ONAS def nañu ko lu aw ci yoon am déet loolee nag Omar Cissé mi nga xam ne xelam dafa màcc jëm ci wàllum aménagement di dëkkuwaay yi nee na loolu rek doyul faw nag ñu gën a jox gëdd bokki moomeel yi maanaam maire yi euh, nguur gi gën leen a kantanal ci wàllum koppar su ko defee nag ñu mën a matale liggéey ba ay kàddam la ñuy teelu ba tey moom Omar Cissé kenn mënul xalaat ni drainage ak euh, wala ak assainissement aux usines au sens large ONAS rek mënu ko réglé. ONAS rek mënu ko réglé sànq li ma wax ci aménagement rek yooyu romb na romb na gis nga nguur gi dëkkuwaay yi du ñu mës nekk dëkkuwaay yu mucc ayib tant que dooleeluñu commune ci wàllu wàllu yépp ci wàllu koppar ci wàllu kattan ci wàllu xam-xam. topp leen ba nga xam ni même bu ñu leen joxee koppar ñoom it ñu ko tàbbal ci wàllu ay recrutement personnel clientéliste ci àddina bi dem kanam yëpp pour di pour dindi suuf si ci tali bi soxlawo keneen ku commune bi pour jëmbat ay garab ci commune bi ci ci dëkk bi commune yaa nga fa pour defar ay banc commune yaa nga fa pour defar yi lampe commune yaa nga fa pour toppatoo bépp xeetu même mbalit wala encombrement yi commune yaa nga fa leneen lu soxal bi lay jotaayu xibaar moo di jàngoro si xës bon seex sidaa si ndax xam ngeen ko ñoom mu gën a yëpp ñenn ñu dul ñi di jëfandikoo sinébar te di ko jaarale nag ci pikiiru ña ko xam le mu di kuréel gi tënku ci ANS NCS mu di kuréel guy xeex euh, li nga xam ne moom mooy jàngoroy euh, sida gi ñoom nag ab la ñu ne mu taxawal ngir gën a mën a taxaw ñoo ñi nga xam ne ñoo jëfandikoo sinébar si jaarale ko ci pikiir jot nañu amal ab ndaje nag fii ci diwaanu Ndakaaru ñu ànd si Cheikh Ahmed Tidiane Seck Habib Dia ñi jëfandikoo Sinébar rawatina jumtukaay ya ñuy jamoo ñoo gën a jekk ci amee jàngoro ji di sida wala sax tuberculose ngir mën leen a muccal ci yooyu la jàngoro kuréel gi di ANCS association nationale des communautés pour la santé gannaaw ba mu wéyalee programme ngir taxaw leen ci seen wàllu wér-gu-yaram namm naa nag yaatal résultat yéen ci jële jaarale ko ci plateforme bu ñëpp mën cee jariñu population yooyu nga xam ne dañuy jëfandikoo Sinébar boo ko saytoo euh, daanaka euh, da gis ne euh, téeméer boo jël si ñoom lu ko dale si fukk jëm ñaar fukk yi am nañu soit feebaru sida wala feebaru tuberculose parce que ay population yu nga xam ne feebar yooyu dañu leen daf leen yàpp trop si lii tax mooy ni ñuy ni ñu koy jëfandikoo ñenn nañu dañuy weccoo ay péng te péng ñu ngiy péngoo pour si neebar ñenn nañu aussi dañu dëkk si dëkkuwaay yu nga xamante ne dafay favorise feebaru saxat bi ba nii programme boobee ñu duppee PARECO doon wéy ci juróomi réew ak plateforme bu ni mel yéene bi bokk nañ lawal ko ci réunion di diwaan ci Afrique. Euh, programme bi ñaari at la waroon euh, durée mais mu ngi jëm si jeex mais dañ ne balaa muy jeex nañu dajale dëkk yëpp fii ñu fexe ba am benn kuréel bu nga xam ne moom moo ñuy lëkkale. pour que li nga xam ne moom la ñu liggéey te mu nekk ay liggéey yu nga xam ne yu am solo la ci dëkk yi ñu mën continuer di ko def. xayma nit yi amee doomu jàngoro sida lim ba gën a kawee ci ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo drogue ya ñuy jamoo waral sax ci lu ëpp li tax programme boobu mu toll nag ci jamono jug jot na ñu war koo wëyal. Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu àddu jëmale ci wàccaayu inauguration bu jumaa ju mag ji di Masalikul Jinaan jàppale ne kon fukki fan ak juróom-ñett ñu ko tàmbali nam ko ndar képp ñaar fukki fan ci weeru septembre waa kuréel gi féete ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke te mu ëmb mboolem daayira bu nekk ca Castor ñu ngi ca wàccaay la woote nañu ab ndaje ni ki démb ba nee lépp ay matukaay jël nañu ko ngir nag lépp aw ci yoon Mouhamadou Massamba Sey ay kàddoom la ñuy teewlu mooy seen jëwriñ ñu waajal li nga xamante ne mooy ouverture Masaalikul Jinaan si njëkkeel bi nag bëgg nañ def li nga xamante ne mooy set setal set setal boo ko déggee day nekk samedi 14 bi ñu jëm ñu fas yéene nettoyer avenue bi defar ko rafetal ko taaral ko peinture ko ba mu méngoog borom tur ngi nga xam ne le dimanche 22 bu fi sëriñ Mountakha Mbacké di jaar mu nekk loo ko euh, anam bu mucc ay boo xam ne dina fekk bërëb bi set wicc waaye ci kaw loolu it ñoo xamale ne comme ngan gi da la ba la 25 bu ci nekk am na donc bés boo xam ne dañ koy jagleel kenn ci yoonu murit bés bu njëkk bi ñoo koy jagleel sunu waajur bu jigéen ñi nga xamante ne donc mooy Maam Jaara Buso bés bi ci topp ñu ko jagleel ko Serigne Saliou Mbacké ñetteeli fan bi ñoo koy jagleel ki nga xam ne mooy Serigne Bara Fallilu ñeenteeli fan bi ñu ki nga xamante ne mooy Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ba juróomeeli fan bi nga xam ne mooy tombeek donc vendredi 27 bi mu nekk inauguration officielle jumaay Massalikul Jinaan ci teewaayu kilif teewu donc Serigne Mountakha Mbacké ak mbooleem njabootu Serigne Touba lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum restauration maanaam wàllum berde ak wàllum dalukaay yi ba képp ku fi ñëw incha allahu rabi dañ la dalal dañ la berde ba sa xel dina dal

te rek tey de ajaratu laa war a wax wala da nga dellu sa mbokki naar yi. waa kay noonu la demee. <laughs> mu ko soxna Fall tàggat yaram ni mu ko waxee wàllu football génération foot day jàkkaarloo euh, Zamalek bu Égypte. mi ngi noonu suba la nu koy euh, jongante ci stade bu Lat Dior lay xewee bu 18h euh, jotee loolee nag tënku ci match aller ci ñaareelu wërngëlu éliminatoire Ligue des champions bu Afrique kon. génération foot di daje koo xam ne ku ñu ràññee la ci wàllu compétition bu ni mel ndax jël na ko euh, juróomi yoon ci wàllu wu ni mel waaye tey jile sànq daje nañu ak taskatu xibaar yi ñu tànn ci as lëf rek loo xam ne Jibi Faal miy tàggat génération waxtaanee na ko mu ni dafa bëgg rek teel a dugg ci marché bi teel a dugal bi ndax loolee mu mën koo rek may mu am xel bu dal tey tam am ci ndam ñu teelu Jibi Faal mi doon janoo ak taskatu xibaar yi. solo mooy pexe yi nga xam ni teg nañ ko ba léegi ñi koy liggéey pour fexe xool nan lañ koy gañee suñu joueurs yi nekk ci loolu appliqué wu ba nga xam ni li ñu bëgg ci match bi mooy dugal ay bit yu bari bañ bañ a jël bit pour euh, bu match bi jeexee ñu mën a am résultat boobu. Génération Foot Académie la boo xam ni dafa dafa dafa organisé te secteur bu nekk rek am na koo xam ne ku xarañ koo xam ne moo fa nekk pour loolu noonu ma koy saytu. bi ñu xamee ba léegi ni Zamalek la ñuy dajal ki war yor wàll woowu seen match yi nga xam ne joué nañ ko ñoom yëpp am na ko def nañ ci ay vidéo ba démb rek moo si mujj xam nañ Zamalek lan la mën ak lan la mënewul te liggéey nañ ci semaine bi yëpp bañ jógee ci vidéo sax ci lañ tëral ab programme boo xam ne ci la ñuy mën a sukkandiku pour tàggat suñuy joueurs et boobu ba ci lañu nekk jàpp naa ni suñu. public bi nekkee suñu ginnaaw eh, joueurs yi appliqué wu ci li nga xam ne moom la liggéey ak ñoom ak li ñuy gis ci vidéo bi yàlla mën nañu may li ñu bëgg incha allah. non pression jàpp naa ni warul am parce que tey fi ñu toll nii eh, euh, problème mu Sénégal yépp la ndax xëy na lu toll fukki at wala lu ko ëpp Sénégal duggul ci li nga xam moom lañ bëgg mooy phase kon tey soo amee benn équipe bi nga xam ne moo des pour jëm ci wàllu woowu kon jàpp naa ne rek ñun ñëpp dañ ci war a ànd liggéey mi ngi noonu kon ñu fàttali leen ni suba lay doon 18h ci stade Lat Dior bu Thiès lay xewee waxtaanee tam assemblée général AS Pikine ñoom itam wax nañu ne suba lañu koy amal defoon nañu appel à waaye ba tey jilee ñuy àddoo rek laata ñu koy ndar képp Mamadou Gueye lañu demmeeku moom kese mooy candidat ngir wut fa du faal foofee ca boppu AS Pikine des na ko topp ba xam mbir yi fan lay mujjee gannaaw ba nga xamee ne wax nañu ne am na ay coppite yu bari bëgg nañu ko amal ngir gën a mën a ñoŋal